asalaamaaleykum wa rahmatulah yow mi suivre sunu sécurité di leen jàmm ci vidéo bu bees bi ci sunu formation nëbbatu ginnaaw bi ñu gisee toor tey dinañ wax dinañ continuer wax ci nga xamante ne dinañ ko war nañ koo bàyyi xel ci bi ñuy utiliser toor balaa loolu ñu ngi lay ñaan nga abonné sunu chaîne YouTube bi partage vidéo yi ngir ñeneen njariñu si bu ñu utiliser toor am na yoo xam ne war nañ koo bàyyi xel mooy. lu jëm ci réputation bi ndax ñu bëri bu nee toor wala lu jëm si daaru ko ak yu mel noonu yu bëri dañ xalaat ne am na ñu fa nekk ay criminels yoo xamante ne xëy na dañ fay jaay yenn yi wala dañ fay def yenn activités yi moo tax comme réputation bi yàq ko xawum lañ ko war a bàyyi xel donte am na service yu fa am njariñ am na yoo xamante ne mën nga koo utiliser saa ngay dugg ci yooyu noo xamante ne ñu ngi koy wax nga xamante ne ñëpp ko utiliser ñu def crime ñi nga xam ne ay criminel la wala ñi nga xamante ne nekkuñu ko moo tax sax si réputation bii nii am na xeeti site yoo xamante ne boo ko bëggoon a awee toor day bloqué comme sa connexion wala doo mën a jàll tax danaan la euh, toor ngay utiliser wala yooyu noonu bala bala bala beneen bi mooy exit exit note bi comme ni ñu ko waxee woon euh, du chiffre données yi buy génn euh, mën naa nekk risque mën naa bañ a nekk risque mën naa nekk risque mooy bu dee site bi ngay visiter wala fi ngay visiter utiliser wul Euh, benn protocole boo xamante ne day chiffrer données données yi mën naa nekk risque bu dul loolu gaawaay bi euh, connexion bi ndax mën na ne ci ñetti bërëb lay aw yu bokkul bu dee yoroo connexion bu gaaw lool lool mën naa yeex mën naa def effet comme boo boo dugg ci benn site mën naa xaw a mën naa xaw a yeex ni ñu koy jëfandikoo nag bëri na lool mën na noo am na Tor browser mën nga ko utiliser Euh, moo ci gën a simple après am nañ Tails euh, moo gën a avancé tuuti Tor browser am nañ Honeyx ak Cubes ñoo gën a avancé Tails nga gis ne yii yëpp bu soobee borom bi di leen ci gis leen si xóotal wax la nan nga koy utiliser euh, ndax dafa nekk lu am solo nga xam ni ngay utiliser comme ça service yi boo bëggee demal sa bopp en général di nga xam yenn technique yi nga xamante ne ku ne war na koo xam après bu dee dañ cee bëgg a dolli bu ci gën a xóotal lool lool lool après dañ ci mën a demal sa bopp waaye li li gën a ndaw yi nga xamante ne moo gën a basi li gën a tax intermédiaire euh, da nga xam ci vidéo yi nga xamante ne di dina ñëw nga xamante ne si commencement vidéo yi di ñëw dinañ dugg si réseau Tor si Tor browser ak nañ koy utiliser wax ci moom nañ ngay def yenn configuration yeeg yi demee noonu. li moo nekkoon vidéo bi di seen ngeen abonné suñu site youtube bi partage vidéo yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu